ay lësum yoo xam ne ñoom ci nidaaw lañ leen di jëfandikoo lu bu génnee nidaaw day chage la wafulu baadu maa yuxassu bi nidaa law lumaanu nawmaanu kaza wa tarada fi sabbilun saa wasnu yaa xadaasi wafulu baatu fulu te maanaahu fulaanun lu doon waaye nag am nañu ko nanguwul ni fulu bi maanaam li ismu jins la rek maanaam bi maanaam yaa rajulu waaye ne ñu melul ni yaa fulaanu bi nga xam ne kinaaya la anil alam fulu mi kinaaya la anil nakiratil maqsuda wa fulu baadu maa yuxassu bi nidaa leen la ci ñu jagle nidaa naka noonu lu'maanu boo nee nit yaa lu'maanu da nga ko ne yaa kasiratan lu'mi nawmaanu yaa kasiratan naw ay baat noonu ñu bindoo nee na xaasun la bi nidaa amma yaa naa imoo yaa la imu kooku jagoowul nidaa dégg nga nawmaanu kaza wa tarada xiyaasu na faw nag fi sabil unsa ci bu ñu dee xas ku jigéen di ko woo woote bëgg koo xas siiw na ca wa tarada xiyaasu na wasnu yaa xabaasi maanaam wasnu yaa faali niki yaa xabaasi yaa lakaaci yaa fajaari yaa dafaari yaa fasaaqi suñu dee xas jigéen nee na loolu mu tarit la bépp maanaam bu ñu mën a xaste xiyaas la nga tëgg ca faali soo dee xas jigéen tàng yi nga ko woo walamru lamar hakaza naka noonu la bine sulaasi loolu bokkul ci bunt bi waaye nee na ismu feelu lamri loolu mën na ko ba tey niki nga naan nazali maanaam wàcc leen su ko defee kenn ak mbooloo góor ak jigéen a ca yëpp de qaalu fi wa qiila fi alxarbi nazali misle ma qaalu xazaami wa qataami fi dumaa ñu di ko binaal ci kasa kii da ko dugal foofu tatmiman lil faayida waaye bu mu bokku fi ndax ñun lisim ji ñu wàllam doono waaye comme wasnu faali bi ñu di ko binaal ci kasra la ni bu la neexeet fiilu lamar ismu fiilu lamri jóge ci sulaasi yi boo bëgg man nga ko niki nasaali wàcc leen jalaasi toogal wa shaa siiw na nag ci lu dul qiyaas fualu wasnu fualu fi saddi dukuri ci boo dee xas ñu góor yi foo waroon waxe faali ci jigéen nga boo dee xas ko góor ngeen ko yaa xubasu yaa fujaru yaa fusaqu wala taqis bu ko xiyaas nag kooku moom sama ayu la ci góor nee na wajur rajar nañu fulu bi nu waxoon fi shi'ri ci way fii lajjatin amsik fulaanan an fuli waaye nee ñu déedéet fulu bi bokkut ak fulu bee jagoo ni daa ndax fulu bee bokkut ak fulaanu fil xaqiqa moom ismu jins la comme rajulu rek nakira maqsuud la awa ne bii nag an fu amsik fulaanan an fulaanin la bëggoon a wax loolu waaye tax rek mu dagg alif gaag nuun ga ni fii lajjatin amsik fulaanan an fuli tadillu minhu ibili bilhawjali fi lajjatin amsik fulanan anfuli abu najmi abu najmi xëy na day ñaar moo tax mu def ci ajam yi ndax ñoom abu najmi bu siiw bi ah mën nay moom abu najmi bi nu xam bu siiw rajaas la boo xam ni rajaas la moo mooy mooy ki ñuy nettali ci ci balaaxa bi ma ni kooku waykatu rajaas abu najmi dégg nga qad asbaxat ummul xiyaari taddaci alayya danban kulluhu lam asnaci min an ra'at ra'si ka ra'si aslaci mayaza anhu qunsu an an qunsuci jadbu layaali abti'i aw ar aw asrici abti'i aw asrici afnaahu qiilu llahi lishamsi tlaci xata ida waraaki ufqun farjici rajaas la abu najm listigaasa listigaasatu mooy ci istilaax mooy woote boo xam ne xettaliku ci ki ngay wallu wut ku la wallu ki ngay woo wallu la wallu mooy xettaliku loolu lañ ciy jublu du woote na ñëw dong kooku nag nañu koy defe ida stoxi fasmun munaadan xufida billaami maftuxan ka yaalal murtada ida stoxi sa suñu dee xettalikoo lisim dañ ko woo woote pour mu wallu si munaadan muy lu ñu woo kon xufida bi laam yi dañ koy xafad ak laam du mel na laam gi nga xamoon nag almaalu li say din nga di ko kasra déet da nga koy fataa maftooxan moom laam nga tel xarafu jar la de ni ki yaalal murtada maanaam yaa ngi woo murtada pour mu dimbalee kon doon yaalil murtada ndax dañoo bëgg mustaxaas mooy ka ñuy fataa laam mustaxaasu lahu mooy ki ñuy kasra laam maanaam yaala zaydin lil muslimin yaalal murtada li fulaanin maanaam murtada la gisil dimbali fulaan loolu la yaala zaydin li amrin maanaam yaa ngi woo zaydin ko law daw sil wallu amar waftax ma al maatuufi in kararta yaa nee na mustaxaas bu dul kenn xanaa di ñaar ah te da ngaa takraar xarafu yaawa kon ñoom ñëpp fataal seen laaw nga ni yaala zaydin wa wa yaala amrin lil muslimin wa yaa zaydin wa yaala amrin wa yaala bakrin lagg si leen lil muslimin fataal seen laaw wa in karar in kararta yaa laa wax wa fii wa sir kasraal yaa dégg nga nag laam nga fii si waa zaaka soo takraarul yaa xanaa da nga ni yàlla zaydin wali amrin kon mustaxaas yëpp kase seen yaa ni ngay kasraa mustaxaas yaa laamu mustaxaas law nga ni wa yàlla zaydin wali amrin lil muslimin ndax bo boo noonu wayaa nag nga ni wa yàlla amrin ñoom ñëpp mustaxaas lañu de ñett ngay woo pour ñu walloo walloo si nga ni yàlla zaydin wali amrin wali bakrin lil muslimin soo indee yaa yàlla amrin wa yàlla bakrin wa yàlla lil muslimin waxtir kasraal fii siwa zaaka ci lu dul soo takraaree yaa gi de walaamu mastagiisa aaqabat alif wa misluhu ism- ismun wa misluhu ismun zu taajjubin ulif mu ni laamu mastagiisa laamu loolu ñuy xeetali ko woon te daan ko fataa aaqabat mën na remplaçanteeg alif da ngay wax ni aqabat mooy feelu maat alif mooy faayilam laama di maf'ul bon ah mën na day yasixul aks mën nga ni walaamu mën nga ni walaama soo ne laamu daal mubtada la aqabat mooy xabaram jumla ji soo ne wa aqabat remplaçante naag alifun ak alif laama mustaxaase alifun nga taanir ko li annahu kalimatun ah wa nga nga daal di ni yaa zayda bañ wax yàlla zaydin alif googu ci mujj remplacé ak laam loolu ba tey mën na nekk dégg nga ni ki yaa yazida li amilin nayla izzin wa ginan baada faaqatin wa hawaani andi woo boobu bayt am na de am na bayt yaa yazida yaa yazida li a- li- li amilin nayla izzin wa ginan baada faaqatin wa hawaani aw bayt la de woo ki xëy na kii andiwu ko nag waaw baax na bisimilah su ko defee wa misluhu lu yem ak moom ci alif gi ismun lisim zoo taajubin ju borom bu ñu yéemu ci moom ulifa goog mii niis ne ko ni ki yaa ajaba fa yaa ajaba min koori hal mutahammad yaa aja waaw yaa yazida kii indi na yaa yazida li amilin nayra isin waaye su tar bu jëkk bi rek la indi yaa yazida li amilin nayla isin wa ginan baada faaqatin wa hawaani an nudba moom it ci xeeti nidaaw yi la dafa taraas ak taajub ah taajub du bokkul ak istixaas taajub abada tafdil la bokkal ci ay xudud daal comme ni passé listixaas moom ci xeete ndaxte taajub ak abada tafdil bokkul ci bunti woote yi listixaas nag ci bunti woote yi la bu mukk nud baak yooyu ak dégg nga an nudbatu moo tax mu sësale yooyu bunt ngir munaasaba maa lil munaada maa li munaadaj al li manduubin wa ma nukkira lam yundab wala ma ubhima nudbatu moo di woote ndax lan imma lil mutafajjaci alayhi wala lil mutawajjaci minhu loolu mooy nudba mutafajja alayhi mooy ku ñuy métit lu la ko dal ni ki ni ki yaa umara mbaa waa umara dégg nga ah mutafajjau mutawajjau alayhi mooy lu mooy luy métti nit mu ne waa rasa ku boppam di métti naa wooy sama bopp matalan loolu yooyu yaar mooy nutba nidaa u ah lil mutafajja alayhi wala maanaa iclaanu ismi almutafajjaci alayhi wala ismi almutawajjaci minhu ni ki waa zaydaa ak wa waa rasa xeetu ni daa la nag moo tax ñu sësali ko mu ni ijaal defal li man duubin maa lin ni daa munaadaa la ñee loolu munaadaa nga xam ne da nga koy dàmm taqdiran dégg nga xarak ak munaasaba lil alif gi ci mujj moo te dàmm nga mën feeñ soo ne yaa yaziida mbaa waa zaydaa dafa mel ni waa yaa zaydu nga bëggoon a wax dàmm ga nag dañ koy natal léegi su dee mufrad bu dee mudaaf wala sibu mudaaf nag dañ koy nasab lafzan waaye du tee nu muy bon tey xulaama zaydin soo ko dee nut ba du du tee nag ca tal mu daaf ilayhi ma nga jokk ca alifu nut ba nga ni waa xulaama zayda waaye da nga koy nasab kon de wa yun dabu danañu nasab ah wa maa nukkira luy nakkira lam yun dab deesu ko deesu ko nut ba na maarifa daal lañ ko dégg nga ah kenn du ni waa rajula ci rajulun kese dañu ko def waaw waaye nee na bu fekkee mu tawajja minhu la kenn du ni waa rajula nee na mu tafajja alayhi nag mën nañu koo nëbb niki musibatun juy nakira nga ni waa musibata dégg nga mubham mu niki haada kenn du ni waa haada haada ismu mubham mooy ismu lisaara yi waaye nag ba nga xamee ni mawsul it ismu mubham la mu setti ko nag ndax nee na wa ma nukkira lam yundab wala ma ubhima du jegee ni du ñu lam ni ki ismul ishaara bi xaqiqatan waaye bu dee mawsul mubham nee na wa yundabul mawsulu billadi ishtahar mubham bi nga xam ne mooy ismu mawsul de moom su amee si la su mu siiwoo soo xam soo ko tuddee ca mawsul gaat xam nañu ko moom nee na kooku moom def na ko nit ba ka xawlihim ka bi'ra zamzamin yali waa man xafar arab daanañu ko wax du jooy abdul muttalib waa man xafara bi'ra zamzama mu mel na ko ni waa abdal muttaliba man ismu mawsul la man ki nga xam ne xafara bi'ra zamzam kooku moo di abdul muttalib siiw na tax arab ni waa man xafara bi'ra zamzama mooy wa yundabul mawsulu billadi istahar ka bi'ra zamzamin yali waa man xafar wa muntahal mandubi silhu bil alif matluwuha in kaana mithlaha xudif nee na yemukaayu mandóob wu mujj wa silhu bil alif te alif nag ci fataa la man juddoo kon fataa ko comme ni mu doon wax boobu ba tey matluwuha la nga xam ni ca la alif gay topp nag in kaana alifan mislaha kon xudifa ndax yaari alif laa yata laa tatawaala yani laa yatawaala yani laa tatawaala yani ku mel ni Muusa alifa ca mujj soo ko doon woo wootab nut ba du tee nag jenn alif ngay mën a wax waa Muusa rek ngay wax waaye doo fi dikk di jéem a soppi alif bu njëkk gan nangam na déedéet mooy matluha in kaana su nekkee mislaha di kam alifu nut ba gi ngay nar a andi kon ga nga fi fekkoon moom xodifa dañ koy dagg wàcc bàyyi fi alifu nut ba kadaaka tanwinu alladi bihi kamal min silatin aw xayriha niltal amal kadaaka naka noonu des na dagg tanwinu alladi kamala bihi bihi ci tanwin tanwinu la nga xam ne tanwin la mottali ko ni ki xulaamu zaydin ah kookoo tam dañu koy dagg ci nit ba de ni ki waa xulaamu zayda tanwin dootu fa ne moo xam ci sila la jóge woon ni ki waa man xafara bi'ra zamzama tanwinu zamzamin amu fa te zamzamin amoon na tanwin ndax du mun sarif mu dégg du du maalaayam sarif ah zamzam wala mu annas la nga turu bi'r la te alam la normalement war na doon maalaayam sarif de dégg nga waaye wax ni faala leen rek dafa dul ci awsaani ci lay masana te awsaan bokkul ci awsaani maalaayam sarif lu dul bu dee mu annas di alam loolu nag lisim bi ko boole yàlla naa dekk adamu sarf adamu sarf min silatin aw xayrihaa ni ki xulaamu zaydin bi'ra zamzam ah zamzam bu dee alamu teen bi mu annas la li anna al bi'ra mu annas qaala taala wa bi'rin mu'attalatin bi'r mu annas la dégg nga aw xayriha wala lu dul kii ni ki baaxulaama sayda nil ta yàlla na nga am al amala mi badda ko motale way waaye nag amin wa shakla hatmin awlihi mujanisa in yakun al fathu bi wahmin la bisa wa shakla wa awli méngaleel a shakla maska awlihi méngale ko mujanisan lu xeetoog moom ci xarafu xëcc su fekkee jaa zaydun maanaam lu kooku waxunu ko waaye lu mel ni xulaamahu lu dëgg wala kooku dana ci wax léegi ni bu fekke maalam in la in in in yakun il fathu bi wahmin laabisa su fekkee xulaamahu nga bëgg a wax kon nee na masque ga nga fi fekkoon da nga koy méngale xarafu xëcc wu nandoog moom te kon misaal miin wax waaway nandoog dam nga ni waa xulaamahu au lieu ndaxte in yakun su nekkee fatxu gaw laa bisan di làmb bi wax min ci juum day ndax lent day dikk soo ne waa xulaamaha ñu defee ki moom xulaam jigéen la woon xulaamaha la woon fekk xulaamahu góor la woon loolu la ñuy bañ lent moom moo tax naka noonu ah, ah, xulaamaki di wax ak jigéen soo ko dee nut ba da ngay naan waa xulaamaki xëcc yaa ngay indi waaye soo ne xulaamaka ñu defee xulaamaka góor nga doon waxal dégg nga moom la ni wa shakla maska ga fa ne aw lihi tofal ko mu la mu jaani san xëcc gu jë gu xeetoog moom bu ca bu ko yemale ci alif xatman ci lu war kañ la in yakun su nekkee fataag nut bëgga wa laabisan bi wax min di làmboo ak juum mën a daal eh, day juumal ku ko dégg day defee ni jigéen ngay wax fekk góor ngay wax wa waaqifan zid ha saktin in turid wa in tasha fal madda wala ha la tazid wa zid yokkal ha attaani waaqifan mbir ngay aji taxaw ndem sa nut bëgg da nga fa taxaw bu la neexee yokkal ha attaani in shi'ta bu la neexee rek bi dalil qawlihi wa in tasha bu la neexee fal madda andil madda gi rek waa wal haa haaga wala tasit bul dolli al haa bu la neexee xaw sakt bi jaayis la du waajib waa mën nga ni waa umara wala waa umara rek yem ca wa qailun waa abdiya waa abda man fi nidaliya fi sa sukoonin abda nee na nut ba nag fokk war na niroon teeg am munaasabaak nida ndax xeetu nida la te lu mel ni abdi waxoon nañu luxaat ya ca waroon am na ku daan wax yaa abdi dégg nga am na ku naan yaa abdiya mu ni waqaailun aji wax la man ka nga xam ni abdaa feeñool na dégg nga fe feeñal na al yaa a yaa daa sukkoonin muy boroomu sukkoon fi nidaa yi ca ba muy woote ka daan wax yaa abdi kon yaar dagan na ci moom ci nut ba mu ni waa abdiyaa ndaxte fokk alifu nut bàyyi ñëw wala mu dindi yàgg ni waa abda moom yaar yëpp mën na ko ku dul moom nag waa abda dong la mën a wax du dëgg ka daan wax yaa abdi bil kasri rek yaa abda ka daan wax yaa abdu bi dam yaa waa abda lay wax du dëgg tarxiim tarxiim danañu ko jëfandikoo ci loxo bi maanaam yuqaalu sawtun raxiimun baat bu sew kàddu gu sew boo bu fooyooy daal amma raxamal kalimata nag istilaax la mooy xadafa axirahu inda nidaai wa yakunu xaaliban wala yakunu qiyaasan illa fi lcalam الترخيم احذف حذف آخر المنادى مج لا ñuy woo su dee alam tarxiiman te kon mu qiyaasu bu dee lu dul alam na qiyaasuwul ka qawlihim fi saaxibin yaa saaxi li kasrati isticmaal ndiki yaa suca fi man daa sucaada nga xadaf axiral kalima wa jawisan hu daganalal tarxiim nag mutlaqan ci alam la wala du alam fi kulli fi kulli ma ci lépp loo xam ne unisa bil haa i dañu koo jigéenale haa niki yaa Fatima wala du alam yaa jaariya ci bode woo jaariyatu te jaariyatu sifa la fatimatu alam kon looñu ataani se ha moom kooku tarximam xiyaas la mutlaqan walladi li nga xam ne qad ruxima dañu ko tarxime bi xasfiha ci dagg haawu taanis yaa fatima yaa jaariya kooku waffirhu sakkanal ko wala nga ni lawal ko ci wax nu yenn wala gannaaw ga bi maanaa bul fa xadafati dara bul soppeeti waffirhu na nga ko bàyyi noona bul ko soppeeti nga bàyyi fa fataaga ni yaa Fatima dégg nga bu dee chaatun sax boo defu tur di ko woo yaa chaa rek de ndax awtaanis fi kulli ma unisa bilha walladi qad ruxima bi xadfiha nag waffirhu lawal ko gannaaw ga ba ko noona waxdul tereelit ترخيم ما من هذه الها قد خلا إلا الرباعية فما فوق العلم دون إضافة وإسناد مت ولا أه؟ وحذل تريل ترخيم ما ترخيم الاسم جوخاني خلا ويتنا من هاء التانيث هذه الها آه إلا الرباعية لدول بوقها فتمت نينتي حرف لو بون دون بون بون نكي أحمد غنان يا أحمد فما فوق ولا لو أب نينتي حرف بوق ni ki yaa faras daq danaan yaa faras da alalamu bay alam bu yorul haawu tanis nay alam te namat ruba yu mbaamu jëm ko doona idaafatin te doonul lu laaf ni ki abdullahi kenn du wax yaa abdu wa isnaadin ak lu dul jumlay isnaad baraqa nahruhu ak shaaba qarnaaha kenn du wax yaa baraqa wala yaa shaaba tur ci tur yooyu nga xam ne jumla la woon ci cosaan xanaa ak, eh, bu fekkee ni tarkib bas ji la te kooku ñaari baat yi dafa mujj doon benn kooku mënees na ko tarkib wa ma ala axiri ixdifi alladi tala in siida laydan saakinan mukammila arbaatan fa saaidan walxulfu fi waawin wa yaa'in bihima fatxun kubi mu ni soo xadafee xaraf wu mujj nag dana am tàng xaraf wa ko dawlu danga ko mën a xadaf ndegam sart ndegam takaamalat fi hadi shurut mazkura sart yi nuy wax su fa dajeloo danga ko mën mu ne wax def xadafal ma al axiri ànd ak xaraf wu mujj na nga xaraf alladi la nga xam ne talaa mujjaa ca toppoon ci sartu insida ndeem xarfu zaida la bu dee cosaan kenn du ko dindi du du dëgg so lu mel ni faras daq soo ne yaa faras da nga bàyyi fa la ca topp waaye bu ne yaa faras ndaxte daal gi du zaida insida ndem s- xarafu zaid la lay nan te xarafu nooy ni ko waawu mansuur saaki nan tey lu sukkoon ni ki noonu mu kammilan arbaatan na mottali ñeent fa saaidan baa mu ëpp ko kon na nga ni yaa faras da dégg nga mana yaa mansu yaa mansu ci mansuur waaw yi dafa mottali ñeent te zaid la de dikkul woon ci baatu nasara te alam wal xul fu wuute nekk na nag fii waawin ci waaw gu mel noonu nga xam ni xëy na zaida la mukammilan arbaatan wa yaa in ak yaa waaw ak yaa yoo xam ne xufima xufiya bihima dañu leen tofal fatxan fata su fekkoon ne dàmm moo ko dawlu mm, wala kasra waaye yii nag ñoom fata moo leen dawlu ni ki firawna wala xura xura nayqin ismu tairin ah kooku kon wutee nga ca danañu ko xadaf te ñu wax ne buñ ko xadaf nag seen wax jooju moo gën jiitu nga naan yaa firaw bàyyi fa waaga yaa xur nay ci soo dee woo xur nay ndeem da nga koo def turu nit am nañu ko daganal bu ñu ko dagalee nga ni yaa fira wa yaa qurna waaye bàyyi fa waaw a gën a siiw wuute naag waawu mansuur ki nga xam ni dàmm ko jiitu kon doo wax yaa mansuur déedéet da nga naan yaa mansuur kii nag fataa ko jiitu wala li nga naan yaa fira la gën rafet nga ni yaa firaw wal aju saxsif min murakkabin waqal tarxiimu jumlatin wa daa amru naqal waxlif xadafal al ajusa mujj baat baatu ñaareel ba min murakkabin ci lu ñu tarkib tarkibul masji ni ki baala baka ak xadara mawta su ko defee nga ne yaa baala yaa xadara bu doon turu nit ngay woo turu dëkk la na bu doon turu nit nga ne yaa xadara wa qalla néew na tarxiimu jumlatin tarxiim jumla maanaam jumla manquul jumla ju ñu toxal def ko lisim ni ki saaba qarnaaha ak baraqa naxru bi nu misaali woon kooku dabaatal na ni nag tarxiimam daal dafa néew lool moo tax moom xiyaasuwul moom ba tax na dañu koo bañoon bu njëkk wala lii nag néew na du xiyaas waaye amrun Sibawayhi ci boppam naqala toxal na loolu Sibawayhi amru mooy turu alamam Sibawayhi laqab la rek maanaahu fil farisiyati raihatu tufaax xetu pom lay firi ñoo ko toxal def ko ni siib mooy tufaax wayhi mooy raiha fa inna lugatahum taqlibul mudaafa ah, dégg nga def mudaaf ilayhi lay dawal mujje mudaaf maanaam bu loo xam ne bu doon waxu arab mudaaf ilayhi lay doon kooka la ñuy dawal ñoom kooku ragal naa ñu wal wal aju sattaas wala lii te mooy tarkibu jumla naqalahu Sibawayhi maanaam am moom la moo di amr amr mooy turu alaman ngay wax ci saaba qarnaaha yaa shaaba la yaa shaabu léegi wa in nawayta baada xadfin maa xudif falbaaqi yastaamil bi ma fiihi ulif ñaari anam nag dagan na ci soodee xadaf lu dul lu dul haawu taanis li nga xam ne mu jëwul woon haawu taanis soo demee ba di ko tarxiim wa in nawayta su fekkee yaa ngi nattale qaddarta maa xudifa la ñu fa jële baada xadfin maanaam yaa ngi ko compté comme ma nga fa rek nee na kon fastaamil na nga jëfandikoo albaqiya la fa des bi maa ci xaraka ga nga xam ne ulifa fiihi mii ne woon nañu ko fa nga bakku fa noona ah kon yow yaa ngi mel na ko xasaful ni ki yaa ahmadu nga ni ko yaa ahma su fekkee yaa ngi nattale ni daal gaa nga fa amma soo ko deful nag moom la ni waj'alhu in lam tanwihi mahdufa ah wan wan wan waj'alhu in lam tanwi mahdufan kama law kaana bil axiri wad'an tummima waj'alhu defal ko kama law kaana mu mel ni su nekkoon tummima bil axiri dañ ko dafa mate woon dañ ko matale woon xarafu mujj wi wi fi des na nga ko def noona ci kaw di ko binaal ci dàmm in lam tanwi soo yéenewul mahduf soo nattalewul ne dara jóge na fi ni ki ahma ba nga daggee daal ja da nga bàyyi comme ni noonu la baat bi tool woon nga ni kon yaa ahmu in lam tanwi mahdufan in lam tuqaddiri daala nga def ko noonu soo ko nattalee nag nga ne yaa ahma nga def ko kama law kaana wudi a bi laaxiri tumbima bi laaxiri fi wadihi l awal fa qul ala l awali fi samuda yaa samu wa yaa sami bi ala saani bi ya fa qul nga wax ala l awali ci loxo bu jëkk bi te mooy su fekkee ne yaa ngi xaaru des wa mel ni tarxiimoo ci ku tudd samuuda nga ni kon nga wax ne yaa samu ndax mel na na daal gaa nga fa o nga wax alasaani ci waxinu ñaareel bi nga xam ne mooy xaaroo too fa dara ba nga ko daggee konte too ko dafa mel ni loolu la baat bi ma sa toll kon yaa samuuda boo koy woo nga ne yaa sami lu tax doo doo too mën a wax yaa samu ndax du mën a nekk lisim ju ci arabiya joo xam ne dàmm da cay waaw da cay mujj wu sukkoon dàmm dawlu ko mu des fa noonu rek ah te du damir ni ki huwa waaye bu dee lu tax ngay wax te dal laa yooru na min ka min min asluhu min ad dalwi kon nag laa mu xoo waawul te dallu wan te fa lan nga waroon wax waaye doo ko man foog nga soppi dàmm ga kasra ndax waaw wi mën a soppi ko yaa xëy la loolu arabiya bi moo ko nangul yaa sami soo xaarootul dara nga soppi dàmm ga te kon waawaat soppi ko yaa yaa sami ala ala sani ci waxu ñaareel wi kon nga wax yaa sami bi yaa in dégg nga waltazimil lawwala fii ka muslima wa jawwisil wajhayni fii ka maslama maanaam nag tarxiim dafa yentang soo ca defee loolu nu doon wax mën na andi lant lu mel ni muslimatun ci nakira maqsuuda nga doon ko woo jullit bu jigéen nakira maqsuuda la nga ni ko yaa muslima kooku soo ne yaa muslimu ñu defee ni góor ngay woo lënt day dikk ndax muslim ak muslima kon nag nga bàyyi kee ci fataam ñu xam ne xaw taanis nga fi xasafe kon sifa la wa jawis daganal alwajhayn ni ñaari anam fii ka maslamata maslamata turu góor la ci arab a maslamatu nu fulaan bare na ci kooku bone yaa maslamu du doon lënt